alors euh, gis naa euh, benn Guédiawaye Benno Bokk Yaakaar euh, dafa soutenir sans réserve la candidature de de de Amadou Ba. Mhm. dégguma la gisuma la yënguwuloo kilo waa c'était un soutien de de de de de voilà principiel. ah yow yaa ngi may bëgg <laughs> yaa ngi may bëgg a jaaxal. au contraire on m'accuse d'avoir roulé avant l'heure pour Amadou Ba. ah bon ah, ah boobu rëcc na ma de. mais communique yooyu yëpp de xam nga mënuma siñe communique te te gëmuma ko loolu moom mënul am non seulement man maa initier communiqué yi waaye man maa ko signé et euh, yàlla def na avant même ñuy tànn Amadou Ba quoi que suma position nag dama ko garder waaye xam nga président moom kenn mënu ko nëbb position moom war na ma ne xam na. lan moo nekkoon sama position Amadou Ba tamit xamoon na suma position. donc avant le choix. avant le choix yow Amadou moo doon man j'étais avec Amadou Ba quoique xëy na sax yenn relation yi ma am ak yeneen candidats aw ma ko ak Amadou Ba. mais pourquoi Amadou Ba. Euh... pourquoi pas Ablaye Daouda pourquoi pas Diome <clears throat> Aly Ngouille Ndiaye. ñett ñooñu euh, nga tudd Mame Boye Ablaye Diouf Sarr. Euh, njëkk a tudd ku ci nekk am na ak yow relation. personnelle Diome Ablaye Daouda ak ak Aly euh, ak Aly euh, si j'avais un seul ami dans le gouvernement peut-être que Aly Ngouille Ndiaye la mais mun naa si j'avais un seul frère ci gouvernement bi c'est Abdoulaye Daouda compte tenu li ñu seq yëpp euh, Boun a été presque mon mentor Boun moo tax ma intéressé wu euh, aux questions économiques moom moo tax ma intéressé wu à la fonction de chef de bureau économique parce que quand il a été à Paris j'étais à l'ENA en train de poursuivre mes études ñu doon gisee tout le temps mu nekk sorte de mentor mais euh, la question de la candidature c'est pas une question personnelle euh, le président l'a si bien résumé en disant que c'est pas une question euh, c'est c'est plus une question rationnelle objective qu'une question de de choix euh, et qu'une question subjective euh, ku nekk da nag da ngay poser pour et contre ku nekk nag mun nga wax aussi que argument bi nga joxe du argument bu valable mais man j'ai eu la chance d'avoir travaillé ak Amadou Ba mu nekk sama patron quand j'étais directeur général de la caisse de dépôt ma gis en lui non seulement un homme extrêmement rigoureux professionnel ay euh, avec beaucoup d'expérience euh, un homme extrêmement généreux avec ses collaborateurs euh, mais euh, aussi un homme qui est très ouvert ma gis aussi réew mi fi mu toll mais gis surtout sunu partie ak sunu coalition fi ñu toll ak capacité bi Amadou Ba am à éviter euh, les tensions parfois inutiles. Je crois que de ce point de vue, il avait suffisamment d'arguments pour être le candidat. Je suis pas en train de le comparer sur chaque point à chacun des autres. Mais je crois qu'il avait suffisamment d'arguments et euh, il était moins euh, euh, conflictogène que tous les autres ah, candidats. Boundion n'est pas conflictogène. mais man j'avoue que bi may jël Euh, position sax di xalaat Amadou Ba boobu je ne savais même pas que Boun Dionne était candidat très franchement et à ce jour d'ailleurs bi mu nekkee candidat yëg naa ko jëm naa ko woo sax jotuma ko euh, xam naa nag nit ku am kersa la ku ma fonk lool euh, mais jot naa par exemple Ali Bouy pour réitérer mon amitié et espérer que les chemins vont se retrouver incha allahu rabbi